Mokte spectateurs yi ñu leen dalal jàmm seen émission kenn askan wi tey jii ñu am mbégte dalal Ahmed Diao moom mooy président de séance de la coordination des étudiants de Saint-Louis nekk ci université Gaston Berger Ahmed Malé dans dalal jàmm si plateau kenn askan wi. waaw jërëjëf euh, sëñ Malick maa ngi nuyu téléspectateurs yëpp ñu ñuy seetaan à travers ITV. Nous sommes sama mbokk étudiants surtout à UGB les Sanarois donc maa ngi leen di bu baax. Mm-hmm. merci.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 ñetti ak fukk ak mu docteur Marie Ngom mooy de la santé alors Ahmed Diaw ñoo ko gisanoo Sénégal coronavirus bi tey rek amaat na nit bakkan ban nga def. di wax rek euh, bi mi ngi commencé am doole bu baax surtout Sénégal donc euh, di ñaan population bi rek ñu respecter mesures yi euh, té ñu mëna tok seen kër bu baaxa baaxa baaxa baax baax waaw aussi tamit nañu respecter mesure barrière yi jàppale tamit personnel médical bi am na am na solo bu baax a baax parce que képp ku lay wax sangul sa set la la la la bëggal donc nañu respecter mesure yi ñun ñëpp ñu mën a xeexandoo jàngoro bi mu jógee fii comme ñun étudiants yi ñu mën a dellu suñu université dem jàngi incha allah. alors au niveau de de ugb l'UGB hein, mm. euh, yan taxawaay ngeen def ci feebar bi su weesoo euh, programme cent mille étudiants je vais comme étudiant yep parce que étudiant yep ñëpp ñu nekk seen gox ñu ngi leen di digal di wax ak ñoom di leen sensibiliser képp ku si mën mu bañ a toog mu dem si communauté si c'est une mairie et tout ça bokk si lutte contre le coronavirus en sensibilisant la population te boobu léegi ñi ngi am ay retours positifs étudiants yi ñi ngi terrain bi pour que le coronavirus bi jógee fi. Hmm. alors euh, programme 100 000 étudiants. Euh, situation bi fan la toll yow dafa mel na si si nga bokk yaa ci membre. Euh, effectivement effectivement étudiants yeb ay modèle lañ donc man dañ me contacter pour me représenter cent mille étudiants au niveau de Yoff donc euh, muy lo xam ne xaaruma ko ñu dem sur le terrain commencer jàppale population Yoff yeb yëpp di def liggéey bu am solo max sama yeneen bok étudiants yo xam ay volontaires lañ bon. ñi ngi avancer dal ñi ngi évolué ñi ngi ñi ngi avancer bu baaxa baaxa baax alors Yoff lan lan ngeen fa jotagum def. Le programme 120 étudiants. Euh, est-ce que les étudiants sont en train c'est une Bon, atteindre c'est objectif. Bon, objectif, atteindre un objectif, parce qu'au début, nous avons 25 voire 30 participants. Aujourd'hui, nous avons 60 participants. Donc, il faut doubler le bar. à à Nous avons VAD, une visite à domicile. Nous avons une descente de boulangerie, de respecter des populations, surtout les clients ñu respecter distanciation sociale ici si tamit ñu ngi dem si plage yi si marché et tout ça pour sensibiliser toute la population de Yoff surtout euh, pour ñu respecter mesures barrières yi ndax ñu mën a moytu bu baax a baax jàngoro bi. Mm, du ñàkk sax si kanam ñu ñëwaat ci euh, coronavirus bi gis nañ euh, Fallou Sène nekkoon étudiant ca UGB mu génn àdduna ñu faat ko fukki fan ak juróom si weeru mai atum 2018 tey jii la mat ñaari at. ba léegi nii yéenay sàkku yoon mu def liggéeyam. waaw tout d'abord rek avant ñu commencer ngeen may ñu ñu féddali suñuy njaal famille Fallou seen mm. di ko ñaanal yàlla mu xare ko àjjana si àjjana yu gën a kawe si barke Seydouna Muhammad donc euh, di ñaawlu comme ni nga ko waxee boobu ba léegi ñu ngi toog di xaar justice boobu ba léegi ñu ngi réclamer justice malgré dégg ngeen fi ay ay euh, aboutissement yu bëri alors que dara musu si aboutir bëri na ay bouleversement deux ans.

mu wax publiquement les gendarmes, bi jiite unité bi déployé au sein de l'université Gaston Berger de Saint-Louis loxoom là na c'est meurtre Fallou donc lolu dafa tax juge bien le procureur bi jëloon dossier bi au niveau de Saint-Louis djébal ko parquet Dakar parce que xamnañ né militaire dañu impliqué militaire te justice bi ni muy Sénégal bu féké militaire dafa doon liggéey ba si liggéeyam ndogal dal ko ci donc il faut que justice am ben papier pour ñu continuer enquête papier boobu mais ordre de poursuite boo les ordre de poursuite bi le lendemain lañ ko waroon ministre forces armées mon très bien le lendemain lañ mais tout nañ di daw si ginnaaw ordre de poursuite plus d'un an nous daw si ordre de poursuite pour pour ministère des forces armées jël l'eau jox pour procureur pour nous mener continuer enquête Nous ñu ngi boom fàllu seen ñu rappelé en mai 2018 nous avons jot ordre de poursuite juin

Firnel lol. dossier bi ñu jébbal ko procureur Dakar mu war a mën a continuer enquête bi et tout ça ñu bañ ko jox ordre de poursuite bi gis nga ñun bañ xeexee ba am ordre de poursuite bi lan mos desoon continuer enquête bi mais defuñ ko de ils n'ont pas continué l'enquête dañ jël dossier bi jël ko lem ko ba mu rafet dugal ko ci tiroir mais mais est-ce que yaakaaroo aussi xam nga mbirum yoon aussi euh, des fois mën na yàgg. Mhm. est-ce que yaakaaroo que ni enquête bi comme temps yele ci ginnaw wéru mars avril ñun doon wax ni danaka bokkale nañ enquête bi est-ce que yaakaaroo yoon taxaw na thème ngir mbir mi leer nañ waaw xam nga c'est vrai deux ans yàgg na. yàgg na hmm. mais xam naa ni justice bi ñu ngi si. jàppoo loolu yow. non jàppuñ loolu. Hmm. xam la moo tax justice bi nekk si. Ah, parce que mars dégg ngeen fi ñu ne kay affaire bay yàgg rek. mais dégg ngeen fi ñu ne mois de mars dossier Fallou Sène bouclé nañ ko ba pare lan moo des procès alors que nous, ñun suñu côté nan ngay boucler dossier procédure te dégluwoo ñaari avons réparti. jusqu'à présent amul benn étudiant bu ñu déglu ci affaire Fallou muy étudiant témoin wala ñun ñi bëgg a constitué nous partie civile. te Nous avons da ngeen da ngeen ni ay étudiants qui nga été ni waroon leen déglu yoo xam ay témoins oculaires. effectivement te loolu ñun ñoo ko de liste bi jébbal ko suñu avocat suñu avocat dem joxo juge enquêteur ne ko étudiants yi da leen wara a déglu bu féké bëgg nga def justice bu baax bu féké bëgg nga def euh, yoon comme nim ko nim ko santane mais juge bi dafa non seulement dafa bañ a déglu étudiants yi dafa bañ recevoir suñu constitution suñu constitution partie civile moy lo xamné dañ ko bëgg a def pour étouffer l'affaire Fallou Sène te loolu duñ ko mës a nangu Fallou Sène dañ ko bëm ci état droit lañ nekk ki ko bëm nañ ko atte nañ ko jàpp atte ko comme yoon ni mu ko santaane. alors yéen da ngeen bëgg euh, constituer wu partie civile. Mhm. ngeen waxtaan ci ak seen avocat. Mhm. lan moo tax mbir mi ba léegi doyen des juges nanguwul loolu. doyen des juges daanaka du recevoir suñu constitution partie civil parce que yaakaar na ni ñun waruñu mën a por euh, constituer wu partie civile ñu koy rappeler ne moom le juge enquêteur amul benn pouvoir amul ben prérogative pour accepter wala bañ accepter suñu constitution partie civile kenn mo wara a bañ suñu constitution partie civile moy juge bi wara administrer le procès mom rek mo am habilité pour accepter wala recevoir. suñu constitution partie civile mais mais sen sen avocat euh, lan la len wax. lu ba ngeen kené da ngeen am yéene ngeen constitution partie civile. non ak blocage yu si am ba doyen des juges bañ. avocat bi lu ñu wax mënuñ ko wax fi parce que amna lo loo secret institut instruction bi la donc mun ko mais liñ ñu mën a wax te ñëpp mën si teg seen bët mooy juge bi yor affaire de Fallou Sène bi bëggul déglu étudiants yi bëggul lumière am si affaire yu Fallou Sène te loolu ñëpp gis nañ ko bu fekkoon bëgg na ko carrément def nañ procès bu yàgg ba ñu àttee euh, ki ki kii boom suñu camarade Fallou Sène parce que témoins yëpp ñu ngi fi parce que preuve yëpp ñu ngi fi. mais mais est-ce que jàppoon ni aussi euh, ak situation bi ñu nekk nii coronavirus comme temps yële mois de mars ñu doon wax naan daanaka boucler nañ dossier bi est-ce que jàppoon ni doyen des juges amna yene amna mbebet deglu mbébét yi. xam nga ñun duñ ay dof bo gisé lutax ñu yëkkati won dossier bob c'est parce que monsieur le président de la république dafa waroon ñew Saint-Louis inaugurer ay bâtiment forage yu mu université Gaston Berger de Saint-Louis. ci période bob ci période bob xam nga mënul ñew UGB comme ça te satisfairul suñu première revendication muy justice pour Fallou Sène te wax nañ ko lu leer tant que justice amul pour falsen du mësa a ñëw UGB lol mo taxoon instant boobu mu amoon yéene ñëw inauguré li fa def né xaaral ma wa dossier Fallou Sène bi pour mëna dem Saint-Louis malheureusement pour lui coronavirus bi am mu mu faire tok dafa tok coronavirus am juste bi jëlaat dossier bi tracé ko si tiroir bi loolu mooy kay bëgguñ amuñ benn volonté pour justice am muy lo xam dañ koy ñaawl parce que c'est état de droit la lañ né mm. nga ci jungle bo fóotee dañ la war a dañ la war a condamné. alors euh, léegi seen beneen euh, combat lan lay doon gis nañ 2 ans way nii ngeen di sàkku. yoon def liggéeyam ba tey daal dara sotteeku si. ñun suñu combat mosul changé. Mhm. benn combat lañ am pour affaire Fallou Sène mooy ki ko boom nañ ko jàpp atte ko condamné ko comme yoon ni mu ko santaane loolu moo nekk suñu combat te loolu mooy nekk suñu combat combat boobu lañ am. c'est une revendication qui est forte te dañ koy assumer te dañ koy gëna xex xeex te dañ ko gëm te inshallah dinañ ko dinañ ko alors gis nañ euh, lu waral la lu indi tamit euh, jàmbaarloo gi amone entre étudiants yi ak tamit euh, gendarmerie de Saint-Louis 15 mai 2018 mbirum bourse la woon birum bourse alors depuis lors est-ce que gis ngeen ni bir mi amna avancement wala sen bourse teel a wàllu gën ay retard très bien euh, gis nga affaire de bourse yi. affaire bourse ñor na leen ndax dama la ko wax rek nga ni ma très bien. non lépp ñu ñor xam la moo tax ne la très bien. Uh-huh. parce que dañ yaakaar ne bu fekkee da faute dafa am ñu boom étudiant ndax bourse donc faute boobu waratuñ ko perpétrer malheureusement faute bi taxoon ba ñu boom Fallou Sène même faute lañ am tey fi may wax ak yow ni plus d'un millier d' étudiants à l'UGB ñoo xam ne ay étudiants yu war a jot seen bourse la. Ecobank dafa lànk ne du leen jox seen bourse ñoo xam ne war nañ jot seen bourse depuis mars Ecobank lànk mais mais est-ce que dafa lànk aussi xam nga fii euh, amuñu version Ecobank est-ce que peut-être du ay retard wala ay procédure mais xam nga soo taxawee nga ni Ecobank dafa lànk. dafa lànk parce que ñoom ban am aussi. pour très bien parce que dañu am ay preuves xam nga président de la république. est-ce que aussi xaalis bi dugg na. xam nga président de la république moo jox ay instructions ne bourse yëpp nañ ko fay au plus tard le 5 de chaque mois Ecobank depuis lors xam nga lay def ay simulation le 29 lay commencé paiement bi bu fait, fay exemple 100 étudiants à l'UGB le 29 lay commencé paiement bi di fay bala 5 entre le 29 et le 5 vous na fay 20 à 30 le reste dañuy daaxante 20 voire voire le 25 du mois mais lan lañ mën wax bañ parce que ñun dañuy am état yi bourse nan lay fonctionner dañuy defar état mhm. direction des bourses il defar état par exemple 100 étudiants 100 étudiants yépp dañu war am bourse mu jébbal ko ministère des finances ministère des finances a approuvé ko yóbbu une banque. donc lan moo paiement Casse moo si des fait fay ni. bàyyi ni. sans aucune raison valable donc loolu la ñuy jàpp ñoo il faut qu'il y ait pression il faut qu'il y ait descente sur la nationale il faut qu'il y ait étudiants mais justement est-ce que aussi leur solution la ndax dañ seetlu yéen étudiants yi soo leen di réclamer seen bourse da des di baare tali bi amee ay xeer di oto romb ngeen sànni xamoo leen yéen ñan ñoo si mën nga am sa proche bu si nekk ngeen di sànni rek loolu tamit doy na est-ce que aussi warul jotul aussi étudiants yi c'est euh, une méthode de lutte. loolu ay préjugé la ñun à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Hmm. suñuy méthode C'est là, lan lay reposer wu. concertation non c'est concertation. si dialogue. dialogue la ñuy jiital si lépp lu ñuy mënta def. négociation dialogue. mais mais mais non dégg loolu lu wax la rek. aussi mënoo ko que ni étudiants yi aussi suñuy front dañuy barré talibi mais lan moo tax ñuy fond mais c'est une question. wa mum la wax man la est-ce que aussi jotul ngeen changer méthode. à chaque fois instant bi ñi ngi suñu kër toog waxuma sa instant parce que étudiants yi ñëpp ngi seen kër toog mënuñ manifester mais mois bi passé wala benn mois bi ñi ngi université Gaston Berger de Saint-Louis ba amé problème de bourse wàccuñu sur la nationale. observé nañ une semaine di échanger ay mail ak Ecobank direction des bourses recteur pour Ecobank solutionner problème à chaque fois dañuy négocier mais dañ koy rappeler aujourd'hui gis nga autorités yi nek Sénégal gëmuñ négociation bëgguñ dialogue lan lañ gëm il faut que étudiants yi di tangal il faut que étudiants yi di génn ci tali tant que génnuñ ci tali tant que defuñ marche du ñu fay suñu bourse mais malheureusement ndax xam xam la may problème bi xam nga leen génnee ci tali ngeen yaq yaq yo xamante ne alal boo xam ne yéen ñoo askan bi te yéen a ngi ci biir xam nga yaq neexul kenn te ñun sax duñ ay kat ñun duñ ay yàqkat wax naa la ko fi sànq ñun ay nit lañ ay citoyen modèle lañ da am luñu réclamer suñu droit nañu ko jox sans problème amul ben amuñ ben raison pour bañu fay suñu droit te muy ben chose buñu rappelé, rappeler muy bourse li qui est récent la lay wax nouveau bachelier yi passé moy ñi am bac 2019 100 yi 28 rek ñoo am bourse ñoo am droit à l'UGB wala voilà Sénégal Sénégal gi 28 pour ñoo am droit am bourse L'autre 28 pour am bourse parce que nous am ay résultats yu baax bac donc bourse critère d'excellence là. da un am résultat baax tu as la bourse boo amul résultat tu baax doo am bourse donc képp kuy xeex wala ngay minimiser bourse c'est étudiant a une minimiser excellence muy le grave bu que si pays bu bëgg développer. la ligne. Donc donc nañ jël question bourse au sérieux. C'est très sérieux en plus étudiants et bëri moi permettre ñu nous subvenir à ces besoins. Hmm. alors euh, gis aussi euh, étudiants yi suñuy faral euh, suñu meree wala ou réclamer bourse sama mbokk bourse, yi bëri naa si ay xarit trop. da ngeen def lu ñuy wax ngénte tubaab. Hmm. ñëpp xam na ni ndekki université cherul añ bi cherul UGB ngénte tubaab yow xam nga ko baax baax ngeen jël ay jour def ngénte tubaab. mais loolu xaalis boobu noonu loolu yàq la tamit. dañ leen rappelé rek ah, Ahmed dañ leen rappelé ñun duñ jug rek def ngénte tubaab dañuy utiliser ay moyens yu bëri. Hmm. en plus ngénte tubaab suñu moyen de lutte la ay syndicalistes lañ.

à défaut nous voici sur la nationale maintenant si nous retardé suñu cours etc., nous moo def ngeen tubaab lu autorité pouvoir moins moyen pour barrer

mbir mi ñu yaatal ko. très bien yeneen banque dugg si su ko defee mbir mi di gaaw mbir mi di bar. très bien loolu dañ koy yàgg ñaxtu ne lu tax ñu jël bourse yëpp jox ko benn banque muy Ecobank te ñu ngi profité tamit si émission bi. xam nga sax maa la koy wax ne étudiants yu bëri ñu ngi UGB ba léegi mënuñ jot seen bourse wala soit dañ leen envoyé ay code yu code yu bon la coordination des étudiants de Saint-Louis. code du bon code du bon code du ramener ne étudiants étudiant day dem. mais après. day dem dès que le laay ñëw. Mm-hmm. day dem di retirer il ne que sa code baaxul. souvent day obligé di woote ay jours et des jours pour jot les opérateurs pour mën leen jot ñu mën ko jox code bu baax. Hmm? c'est pas sérieux te loolu moom laa leer le, ne Euh, étudiant euh, Ecobank lépp li muy def yëpp parce que xam nañu étudiants yi ñu ngi seen kër te ngi profité ci occasion bi ne dès lundi incha nous allons porter plainte contre Ecobank pour escroc escroquerie ak abus de confiance lundi bii nii lundi bii nii lundi bii parce que xam nañu étudiants yi ñu ngi seen kër mënuñ manifester mais am na beneen voie.

état bépp bu ñu eco bank jot na li si bépp état bu représentant. mais xam nga laa la bëgg wax fofu manam procédure bi comme yow jamono ji ngay waxé ni da ngeen bëgg porter plainte Eco Bank. est-ce que yow leer na ne eco bank jot na. bank jot na parce que étudiant yoy ñun def nañ ay mail am nañ ay échange ak mail ak autorités yi Ecobank lan lañ wax. li si envoyé ko parce que étudiant dañ dispersé ñi ñi ngi dëkk Tamba ñi Dakar ñi Tivaouane mais loolu c'est pas sérieux c'est pas une raison valable c'est pas serré xaalis bank ngi si ñoom ñoom ñoo bañ a fay bourse yi bu ñu UGB tey tey bu ñu UGB sérieusement fay nañ bourse yi bu yàgg. Hmm. sérieusement fay nañ ko bu yàgg xam nañ bu baax. ma fàttali suñu mbokk euh, téléspectateurs yi ñu ngi dalal euh, Ahmed Diao moom mooy Ahmed Diao moom mooy président de séance bu coordination des étudiants de Saint-Louis mën ngeen participer ci émission bi soo leen wootee ci 33. 824 88 06 amna suñu téléspectateur bu ñëk bu nekk si ligne bi allo bismillah allo allo. allo alaikum. bonsoir man la madame Tal. madame Tal, Dakar. madame Tal. en fait. Mhm. les les hommes passent mais les institutions demeurent exact gis nga di dëgg boo ci nekkee justice bi. Mhm. dafa war a am nu muy tëddee. su fekkee ne dossier politique la. madame taal soo mën a yëkkati sa kàddu ñu dégg la bu baax. ma ne mhm. li les hommes passent les institutions demeurent du dëgg. Mhm. nit la justice ne doit pas être rendue au nom d'un pouvoir ou d'un homme ou d'un clan dañu war rendre la justice au nom du peuple comme il se doit gis nga affaire dossier Fallou Seck ay at mënu won tok ba heure bi vidé wuñ ko c'est pas normal parce que ci dossier Fallou bi combien de dossiers politiques lañ fi vidé quand il s'agit d'un dossier politique dirigeance justice bi mom comme melax lepp day jaar yoon vite fait ñu dikki dal tek di tegee la nale waaye bu fekkente ne yeneen dossier yoo xamante ne parce que li c'est extrêmement grave mmh. doomu jàmbur bi war nañ ko au moins pour que ay pour mu pour qu'il repose en paix war nañu ko diligenté ñu def le maximum ba nga xamante ne xam nga li ma ñu bi ñu ñu ko parce que daal lii waruñu xaar manif ay élèves di manifester wala di def ay truc non non waru justice waru am pression dafa war a dem dans le cadre normal des choses ñu vidé ko loolu lañ leen di ñaan ok merci beaucoup. jërëjëf da ngay tontu suñu mbokk boobu woote léegi. mais wax na dëgg. Ah. loolu laa la wax sànq ne la dossier bi c'est purement politique état bi moo bëggul justice am.

kilifa gi wañi télé bi wañi télé bi. wa ma ne ñu ngi d'accord d'accord bismillah ñi déggul bu baax. hmm allô allô ñu lay dégg bu baax bismillah fa nga ñu wowe ñi ngi rafetlu bu baax émission bi. hmm fa nga ñu wowe ñu lay wowe Kër Massar. bismillah voilà man étudiant la université Alioune Diop de hmm di encourager sunu camarade fofu teewal foofu waa Saint-Louis. Ahmed Diaw. Ahmed Diaw voilà c'est ça Ahmed ñu ngi rafetlu bu baax xalaatam mhm. daal di wax ni aussi gouvernement bi vraiment war na réagir ci dossier Fallou Sen. parce mhm. que li fi amoon ci cas eh, Fallou Sène daal vraiment waratu fi amaat daal parce mhm. que temple du savoir méritoowul li fi li fi li fi amoon cas eh, Fallou

Euh, maa tudd Soin bu Manga. Bismillah, Soin bu. Euh, maa ngi Ndar. fa nga ñu woowee la langue étrangère appliquée. ok Léa. Euh, maa oui, Léa maa Oui, bu baax baax émission bi. wañi télé bi nga permettre ma tamit ma ñaan bi fi na fi dans les oui wañi télé bi s'il te plaît. je m'excuse pardon. ok dama ne woon maay maay maay ñaan mbas bi teel fi jógee. alo yow rek nañuy déglu yow rek nañuy déglu suwaay bisimilah. ok merci. Mhm. Euh, ma bëgg a ñëw ci cas bi taxoon émission mooy cas Fallou Sène ak euh, la situation d'une manière générale des étudiants. Mhm. vraiment. dossier bi comme sama camarade nu mu ko waxee Ahmed Diaw que je de passage mhm. un jeune frère très engagé pour la cause de de l'étudiant donc euh, état bi dama jàpp ni juum na te du dafa seetaan sax mais dafa complice complicité la parce que dossier bi nga xamante ne neutre nga bëgg kaa jël bëgg kaa méngaleeg si yeneen dossiers yi te ñu gis nañ fi ay dossiers yi nga xamante ne genre agression d'une manière Euh, genre légère ñu topp dossier yi ba ba mu ànd mais dossier bi nga xam ne meurtre la mu nekk xale bu ndaw bi ñëwoon pour ut un lendemain rajo ñu faat ko ci manière nga xam ne ñun ñëpp xam nañ ko donc jàpp naa ni jar woon sax ñu àgg foofu noonu dossier bi lendemain bi la waroon leer yépp mm-hmm. ñu réglé ko benn yoon mu jeex mm-hmm. mais bu bu ñu ñëwee ba tey jii nii affaire yi mënul leer day mel ni état bi dafa complice mooy maanaam comme ni ñu ko waxee rek

defe ni yomb na. Hmm. merci beaucoup jërëjëf jërëjëf. Hmm. Ahmed. wax na dëgg. donc lépp. Hein, lépp lépp benn la c'est-à-dire que li ñu réclamer. aujourd'hui, leer mooy justice. parce que amul benn obstacle bu taxaw buy euh, def de telle sorte que justice bañ am lépp daje na ñoom rek ñoo ci des le juge enquêteur na accélérer le processus déglu témoin, yi mu war a déglu ba pare accepter suñu constitution partie civile. le magistrat instructeur. voilà le mhm. magistrat enquêteur. Mhm. Allô. am na ku nekk si ligne bi allo. allo oui. Bismillah. oui salaamaaleykum. waaleykum salaam. fan nga ñu euh, woowee maa ngi rafetlu si émission bi. Mhm, jërëjëf. wàññi télé bi wàññi télé bi. oui maa ngi wootee Parcelles mi. Bismillah. allo. allo oui. Euh, baal ñu nga wàññi tele bi nga wax directement ñun lay dégg bu baax. Oh, waaw d' accord d' accord. Hmm. ne maa ngi wootee Parcelles Assainies. bismillah. waaw man Ameth Diaw camarade de classe la je le félicite pour euh, liggéey bu mu nekk bu di def nii instant bi. Hmm. oui man lu ma bëggoon wax ci affaire dossier Fallou Sène bi. waaw ah, ñu lay dégg daal sonam. ñu lay déglu waaw. c' est à dire état dafa compliqué ci dossier comme moom mm. nu mu ko waxee. Mm. parce que ñun. Mm-hmm. ñu ngi bu à chaque fois bu ñu naree def benn acte boo xam te ne pour réclamer justice dañ koy def de paci paci de façon pacifique quoi. Mm-hmm. ay GST yu ñuy wax ay ngénte tubaab yu ñuy wax ñun bu ñu koy def dañuy GST lañuy def avant ñuy wàcc national donc loolu acte boo xam ne c'est pas ñun étudiant ni ñu jàppee du noonu parce que dañuy foog ne étudiant dañoo violent wala yeneen ak yeneen ñi set loolu c'est pas ça ñu a chaque fois bu ñuy def at dañuy posé bu ñu deful bu ñu bu ñu deful réaction ñu door a def def suñu GST def gente ngénte tubaab mhm. tout ça c'est pas encore pacifique parce que ngénte tubaab c'est pas pacifique et comment comment dire c'est pas violent donc dañuy dem par voie pacifique bu yàggee après ñu door a wàcc national bi donc loolu noonu da ko war a xoolaat c' est pas chaque fois que étudiant ñun chaque fois bu ñu soxla suñu bourse ñu war a jaar wàcc na national bi pour vraiment door a mën a jot suñu suñu suñu bourse yi ñëpp xam nañ problème Sénégal xam nañ Sénégal fu mu toll. famille yëpp tous les étudiants qui sont à l'université Gaston de Gaston Berger amuñu ay moyens bourse boobu noonu la ñuy permettre pour suivre pour pouvoir régler seen seen besoins donc de ce fait étudiant boobu bu amul bourse mais il faut que mu réagir. Mhm. merci beaucoup donc c'est ce que point bu dire. bëgg a wax donc je mhm. félicite Amé Diawo man Prosper Biaye la c'est un camarade de classe merci beaucoup. jërëjëf alors euh, Ahmed Diawo yow UGB euh, nga Université Gaston Berger de Saint-Louis ku ñu UGB wax ni université d'excellence. Mhm. UGB nous mu meloon atum 90 ans. est-ce que nous la mel ba non mënuñ wax non la mel parce que Diamono a évolué. Ah. les conditions ont changé. Hmm. université Gaston Berger bañ koy soog les étudiants yi tuuti lañ fa doon yóbbu. Hmm. ren rek liñ def jël étudiant plus de 5000 lañ bëggoon indi étudiant. Hmm. la CCL moo taxaw ne duñ mës a jël nombre parce que bëgguñ gën a dégrader conditions les conditions yi ñu tegoon 1990 Les conditions yi moo fi donc nous ñu doon jàngee. 1990... mais bien sûr que oui bien sûr parce que université Gaston Berger salle de classe bay rôle changé wul wala li fa changé donc salle de classe yu doon contenir 50 étudiants aujourd'hui doit contenir 150 étudiants c'est inadmissible à l'UGB on a trop de problèmes. même sur le plan social même une chambre une chambre noonu bu yag daaw woon bëri mais légui dafa mel ne presque mok Dakar ñoy très bien comme gars li ñu wax rek suñu mbokku étudiants li ñu wax université Gaston Berger de Saint-Louis donc.

ñoo leen di ziar bu baax a baax. delloo ziar bu baax fan nga ñu woowee. maa leen di woowee depuis Guédiawaye Mouhamadou Moustapha Diouf. bisimilah nekk université Gaston Berger bu Saint-Louis. tey moom dafa mel ne waa waa UGB daal ñoom ñoom ñoo nekk si ligne bi. waaw dëgg la parce que li ñuy waxtaanee moo ñu ñor ak di nuyuwaale le président de séance Ahmed Diaw. Mhm. waa di ko wax ne taxawaay bi rafet na lool lool lool lool lool. Mhm. di ñëwaat juste ci problème mu Fallou bi comme moom ni mu ko waxee rek. dawa dañoo nekk ci état de droit te tey ñun ñi nga xam ne ñooy ndongo yi nekk ca daara ju kawe ji ñu woy université Gaston Berger de Saint-Louis hmm. dafa am benn devoir moral bu ñu war envers notre camarade Fallou Sène hmm. parce que tey suñu camarade bi bi ñu koy boom lu tax ñu boom ko pour suñu ay intérêt la woon donc tey du yoon boo xoolee tey boo jëlee exemple tey buñ boomoon bu nekkoon benn takk der la ñu boom yoon def na liggéeyam bu baax boo xoolee exemple Fodé Ndiaye en 2012 bi ko boomee Colobane teguñ ci diir bu gàtt lañ ci teg yoon teg loxo ñi ko def mais tey pourquoi tey un étudiant qui a été tué ñu toog ñaari at ñu xool benn lenteur bi nga xam ne moom la dossier bi am defe naa du dëgg du yoon te tey dama jàpp ne tey problème de bourse moo taxoon tey Ahmed Dia wax na ko léegi ñu rey Fallou Sène mais jusqu'à présent problème boobu jugeegul université Gaston Berger de Saint-Louis tey ñoom ñoo nekk à la coordination des étudiants de Saint-Louis ñoom ñooy jot information comme ñu la ko waxee à l'université Gaston Berger de Saint-Louis tey jàmm moo ñu tax a jóg ñoom tey am na lu ñu woowee principe de progressivité duñ jóg rek wàcc sur la nationale ñu jóg rek def ay ngénte tubaab comme ni ñu koy waxee. Mm-hmm. dañuy def ay démarches def négociation bi ñu demee ba nga xam ne négociation yi aboutirul ca li ñuy doog a tey jóg def teg yenn actes yi ñuy def te defe naa structure bu responsable la lépp lu ñu def xam nañ bu baax a baax a baax fi ko teg di remercier waat encore une fois la coordination des étudiants de saint Ahmed Diaw di ko wax ne liggéey bi rafet na trop jaajëf. jërëjëf jërëjëf alors Ahmed. waaw jaajëf euh, c'est un camarade lui aussi c'est un représentant d'étudiant Mouhamadou Moustapha Diouf ma koy nuyu au passage. donc li mu wax dëgg la dossier Fallou Sène bi c'est parce que état moo bëggul yoon am mais bu bëggoon yoon am démb démb bi ñu reyee Fallou Sène le lendemain état def na def na def na def na justice. mais mais dina gaaw de mais am na dossier yoo xam moom day dem instruction la. non deux ans peut-être mais le nga wax comme d'un ko fait mais juste mais waxin la juste la juste waxin la. ok alors y a d'autres expliquer aussi euh, Gaston Berger allô na ku allô ligne bi allo. allo bisimilah. allo salam alaykoum wa télé bi télé bi. allo. allo allo bismillah Allô? Allô? Allô? Allô? yaa ngi dégg bismillah kooku vous bi euh, neexul sànq yaa ñu doon euh, sur le plan social euh, Université Gaston Berger de Saint-Louis avec nekk ñu étudiants yi. Mm-hmm. étudiants yi dafa changer mettre des drogues université Gaston Berger de Saint-Louis les villages yi xam nga village dañ ko def ay chambre les chambres dañ ko def ay poches. Ah, village poches yi xam nga bañ koy. defar bañ koy e. très bien. Mhm. poche bu que ben étudiant la don def. aujourd'hui boo demee Saint-Louis am na poche yoo xam trois voire quatre étudiants am na xam plus lay lay lay def si donc nous loo xam dafa dafa dafa jéggi dayo dafa metti te mm. état bi deful benn jéego bu sérieux pour vraiment changer conditions étudiants pour mun am ay résultats yu baax parce que bu fekkee da ngay xaar résultats yu baax da ngay teg jalon yi da ngay teg mm. conditions yi mm. mais sur le plan pédagogique nag UGP euh, am na ay jéego quand même sur le plan pédagogique directeur bi fa nekk ñun am nañ am nañ plateforme Ousmane Thiaré am nañ benn plateforme mm-hmm. revendicative mm-hmm. da am ay points yoo xam c'est des points sociaux am points yoo xam ne c'est des points pédagogiques gis nga Fallou Sène ba mu génnee àdduna jour boobu ak le lendemain daa amoon ay saccage au niveau de l'université Gaston Berger de Saint-Louis salle de classe et matériel yu bëri ñu ko mais boobu ba léegi nguur gi daf ñu diggoon ne day defaraat nguur gi moo ñu diggoon ne bokkul ak bi bureau recteur bien sûr année Bob la temps Bob la mm-hmm. mais daf ñu parce que après dafa recevoir étudiants yi d'une réhabilité dina réhabiliter université Gaston Berger de Saint-Louis li fa nek si bâtiment mu ko bâtiment yi ñu ñu mais la fa tali tali bo xamné ne duggé université xam tali romb bureau directeur course ak bureau autorité les autres autorités biir campus bi ben tali ba suñu voir yi te ko bâtiment yi pédagogie ba fi suuf suuf mu non mais bo fa da ngay mm-hmm. fa sol pour wax la conditions yi UGB sur le plan social c'est inadmissible on pensait que Dieu n'attendait, mais ça va de mal en pire, malheureusement. am na ku nekk si ligne bi allo. allo. waaw Cheikh El Hadj Malick. bisimilah Lat Mbengue. nañ la de démb tey toog di ko xaar ba sonn gaañ. waaw waa démb waaw. ñoo leen raw waaw ñu amoon ay jafe-jafe si wàllum technique bi rek. dëgg la dëgg la dëgg la yàlla na saafara wu baax baax bisimilah. ñu ngi rafetlu sa invité boobu. Mm, Ahmed Diaw. Ahmed Diaw xale la waaye xam-xam lay wax. Mm. yàlla may ñu dégg ak topp rek. Mm. ndax yu mel nii dañ koy soxla ñun. Mm-hmm. ndax lii day tax ñun ñi ne ci kanam. Mm-hmm. ñu mën a xam ëllëg nuñ koy préparé. Mm-hmm. ndax lii nii boo seetloo étudiants yi ñun ak ñun ak ñun benn lañ ñun ñëpp ay ndongo lañ. ku ñu saraxul tamit nañu bàyyee suñu yelwaan surtout ci affaire bourse yi muy wax noonu. nañu dimbale lépp loo xamante ne ni waaye war na ko ci mun a jot rek ñu dimbale ko mu jot ko ndax kuy jàngi bàyyi yaayam ak baayam di wuti xam-xam bu nga nekk kii bu normal wax dëgg yàlla da ko war a teg condition yi normal surtout waa ndar yi nag toujours nga gis fa yoo xamante ne ay borom kàngam génn fa te su boobaa réew mi kese la ñuy njëriñ ñu mel noonu nag dañ leen war a toppatoo état mënul def lépp. waaye nañu dimbale ngir yàlla ñu leen di teg ci condition yu baax avant ñu yuuxu rek avant ñu jot seen bourse rek ñu yuux dafa ruslu loolu man daf may métti daf may métti. Hmm, hmm, jërëjëf. waaw lu ma gënaloon daal balaa ñu yuuxooti di ay affaire bourse ñoom ñu fexe ñu dimbale leen jot ko donte nag corona bi métti na. waaye nag bu ñu teg lépp tamit teg ko ci corona bi avant corona bi am na yeneen sites yoo xamante ne réglé nañ leen ba pare. Hmm. ñu ngi jégalu ñu ngi baax a baax a baax jërëjëf.

parce que accompagnement ndax lan parce que état bi excellence parce que yenn yi remettre en cause excellence parce que vous fekkee da nga université ñu capacité 3000 étudiants Nous nga bëgg 10 000 étudiants loolu yaa en cause excellence. te loolu la actuellement passé lan 5000 bacheliers ñun ñoo ko bi passé passé ne 5000 lañ fay lañ fay orienter. non 5000 parce que espace matul classes yi matul table banc yi matul dara matul nga bëgg ñu indil benn nombre boobu il a fallu que ñu dem AU et tout ça les bis lañ revoir le nombre yóbbu ko 2800 quelque te malheureusement sax après def nañ ci ay njuñ njaaj yokk si ba 3000 et quelque pour vous dire rek autorité ni ñu mel. te daal même daal lu ñu doon wax naan ko am mention très bien wala bien wu yooyu amatu fa. ñu ngi koy yàq am na fa ba léegi am na mention yoo xam ne ay mention ñoo fay ñëw. Mhm. Université Gaston Berger de Saint-Louis boo xoolee ba léegi étudiant yu yu gën a yu gën a brillant foofu lañ nekk macha allah. mais tamit càggandiwul ne amna na ñoo xam ne tamit ñu ngi leen tay indi. mais alors euh, da ngeen am plateforme yo xamne 5 mm-hmm. points la est-ce que mën nga ñëwaat ci point yi. waaw plateforme bi ci jitu mom la rappeler moy justice pour Fallou Sène ma am benn affaire bu ma faté won rek moy que. Mm, en droit. Mm-hmm. gis nga ku def crime bu fekkee dafa taxaw avouer ne man ma def crime bi automatiquement lan mo ci tegu dañ koy japp juger ko comme loi bi nu ko santané l'aveu est mère de toute preuve. Mm. te tey juge bi yor mbirum Fallou Sène xam ni carrément ki def crime bi avoué na donc loolu muy maa tey bëgguñ justice am muy premier point. nous réclamons toujours justice. nous exigeons toujours justice. deuxième point c'est-à-dire question wifi xam dañu promettre woon ne dañuy defal wifi à l'UGB parce que enseignement supérieur la ñu wax. kan hmm. ku enseignement supérieur wax recherche mais boo amul connexion nooy defee ay recherche yu baax te ñoom ñoo ko on a rencontré le recteur début mars nous avons 165 millions pour wifi ba wifi bi carrément UGB. troisième point. la connexion bi dafa connexion connexion Non, non, lañ non non connexion. ah bon non. si ah, village connexion. mais ah mais UGB. une connexion connexion dégg connexion mais connexion lu baaxul connexion. a dafa non mais

Mm-hmm. am nañ tamit ay bâtiment pédagogique yoo xam ne ba léegi dañ ko war a defar comme ay amphi yu bees parce que université wax naa ko sànq nombre bi dafa yokk nombre bi yokko da ngay yokk équipement da ngay yokk table banc da ngay yokk salle de classe da ngay yokk da ngay yokk mais ba mm-hmm. léegi yokkuñ dara te nombre baa ngi yokk malheureusement. Mm-hmm. léegi point am na benn point muy bâtiment. très très benn bâtiment. bâtiment boo xam ne dañ ko defar ba pare deux bâtiments la capacité bu nekk am na plus de 1000 lits ñaari bâtiment yi pare na benn bi pare woon na depuis début mars au lieu ñu livrer ko étudiant xam na lañ def dañ ko defar bam nice peinture ko defar lépp tej ko di xaar inauguration di xaar bambula au moment où étudiants ñi ngi dund seen chambre ay promiscuité ñoo xam ne deux étudiants ñoo war a nekk ci chambre cinq personnes nekk fa nga defar bâtiment plus de mille lits nga tëj ko ne da ngay xaar inauguration bàyyi étudiants yi di souffrir. Hmm. loolu la étudiants yi nekkee tey université Gaston Berger. muy loo xam ne ñu ngi koy métti lu bu baax a baax connexion bi daal nee nañu daal affaire bi début bi gëna gëna a fort ngeen di mën connecté wu bu baax. nañ défar lépp suñ plateforme am nañ ko jox nañ leen ko te plateforme bi c'est réalisable. Hmm. nañ ko défar aussi am na benn point bu ma fàtte mooy question assainissement. en 10 secondes rek. question assainissement. Hmm. UGB dañ am problème assainissement moom laa la wax sànq ne rencontré woon nañ recteur bi début mars mu wax ñu ne somme six millions dégagé nañ ko pour assainissement te travaux yi léegi ñu commencé mais ba. Euh, pas mai mars mai dara commencé. mais xam naa ne xëy na coronavirus bi. non fan coronavirus <laughs> travaux yaa ngi continué. maa lay gërëm ah la sant Ahmed Diaw. wa maa ngi lay gërëm bu et de le remercier encore une fois si invitation bi. Mm. Euh, de remercier encore une fois rek sama camarade moi les coordonnateurs de la de la CSL. Mm. donc maa ngi leen di bigé bu ñoo mm. voilà cause étudiant rek moo leen engagement et disponibilité. pour la cause de l'étudiant ma fàttali yow yaay président de séance pour coordination des étudiants de Saint-Louis mbokk yi très yi de tamit ñu leen di gërëm baax di leen sant ba altine incha allah.